waaw ah, gars yi tool lu ma leen doon wax sànq moo nekkaat nii beneen tool bi ngeen di gis xam naa dama koy filmé nii rek bàyyi leen ngeen comprendre mooy beneen tool bi nga xam ne nii borom ci la inspiré woo ci tool bi gis ngeen nga gis na fi patriote yu bëri leen ay tool léegi ah boor boor bi moom patriote nee leen béy rek leen gëm benn tool la am mu charme ñëpp ñëpp <laughs> tool yi xam naa day gën a yokku kon gis ngeen lii la délégué def commencé ay tool bii bokk na ci tool yi xam naa bu naree woon tool yëpp dina métti ah. tool yi nii nga gisee ni mënoom ay ay lingoom am ay yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen arbre ci bay ay mboq bi dugub mboq lañ ci nar a bay gerte lañ ci bay bi dugub mais dama leen ko par exemple pour ngeen gis ne leen fii benn la ci tool yi gaa yaa ngi ni di ñibbi jël nañ tool bi mais ñu ngi ñibbi kon tool yi waaw mais Grand Ngagne Grand Ngagne Grand Ngagne seen tool yi man xaw ma man waaye man dinaa ci jël benn de ah boobu damay solo boobu daa sori boobu daa sori waaw wuy ma wuy ma waaw ma néeg bi néeg bi fii ay weekend laa fi bëgg waaw <laughs> kon gis ngeen ko kii mooy Grand Ngagne moom tam patriote la gis ngeen toolam moo nekk nii li lii toolu garab dama koy filtrewaat pour mu set rek quoi. garab yi la li ci utaale ndox mu neex am na ci liggéey di ci jaay muy filtre ndox mi am na ci liggéey ndax ndox mu neex la waaw. ngi gis ngeen gis ni lii toolam la gis ngeen mu bokk nga xam tool bee ñu jóge woon bële moo ko inspiré bii te bii am na benn ma xam waa diaspora la mooy comme ba mu ñëw xam ne nii ñu ngi aménagé tool te Pastef Diourbel ci la leen formé fee ci tool yi ba nga xam ne nii gis na ne lii war na mën a dem ba tax ñoom ñi def seen i tool mais dafa mel ni gars yi rek suuf yi dafa wute de dafa am fii suuf bi moo gën a nangu de <laughs> suuf bi dafa wute gars yaa ngi nekk góorgóorlu li rek laa leen doon wax exemple ngeen comprendre ni leen tool yi bu weesoo tool yi am na yeneen gis nga tool bee ñu diwee woon sànq bële beneen tool baa ngi nii exemple grand ngañ bii moo inspiré tool boobu mu neex ko am ñeen ña xam tamit ñu ngi Pastef nekk diaspora bi mooy loolu noonu donc yéen kay yéen kay dem leen man ak yéen bokkuñu yéen waaw waaw ah. lii di toolu grand ngañ <laughs> macha allah gis ngeen ci tool bi la inspiré woo kese ndeysaan kilifa gaa ngi ne ci toolu ngañ inspiré woo ci toolu euh, bi nga xam ne toolu Pastef bi nga xam te ni grand moo ko tegal ndeysaan ba teg tool bi gis ngeen tey tool bi yu mu ñaañee gaa yi ci <laughs> fii dañ fi fay béy mboq jàngal ci ñeneen tamit ñu ñuy béyee mboq ñu koy sélectionné chômage bi ba ci chômage gerte tubaab ak yooyu yëpp waaw bëri ay chômage yu ñu ciy sélectionné yu bare bare yi ya nga xam ne ci la ñuy formé ñu bëri fi mu toll nii am ñi nga xam ne yéen tamit ñoo bëggoon tool leen ne am na yi nga yeneen patriote tey jii ñoom ñoo gis nga fii tamit am ay mango yeneen variété mais lingom moo fépp grand ngañ moom daa bëgg lingom waaw fii dañ fee nar bay ay euh, comment dire yeneen tool yi nga comme que seen borom ba ñu seen tool mais juste te ñaari tool yi lañ dem pour wan leen leen benn tool lañ commencé woon tool boobu noonu ngeen gis ñu commencé woon moo jur lii tool moo jur yi tool wu ci à seen i tool góorgóorlu ci jox ñu ciy liggéey ñu ciy formé wu nag yi mu neex leen ñu bëgg tool ñu ñëw gars yi formé dem ba mu jur ay tool yu baree baree baree baree baree te lii ban koy def ci opposition bi la nekkoon kon tey bu nekkee ci pouvoir dañ koy gën dañ koy gën a fësal dañ koy gën a nekkaat ci jamono ji moom gars yi bëri <laughs> mooy loolu <laughs> gars yi bëri xam naa ne moom seen tool yi moom njëkkante tool bu métti moo fi dana nekk waaw kon donc Grand Bouba ñun waa Pastef lii leen fiy liggéey waaw dina wax ne nag bu ñu ko préparé ñaare moom boobu ñëw ne la leer ne gars yi bëri waaw instant bi tool lañ bëgg ndax gars yi neen fii moo géej day ñëw yenn fii moo leen géej te wax dëgg fii lañ doon lekkee ceeb ñebe bi buñ demoon ci yoon tool pare fii lañ doon toog lekk ceebu ñebe yi kon ngeen gis ne vraiment waa Pastef Diourbel jàmbaar lañ ci ko ñu bëri ñu ngi ci am tool xool leen ndeysaan fi gars yi di toog ah doon yendu bu deful dara fii la doon yendu jamono itam dàqe baak sas au socière fii la ñuy ñëw yendu toog suñu toog jàpp <laughs> waaw <laughs> lingom yaa ngi nii cey lingom bi lingom bi moom moo dàq jur ci lingom yi am na luy jooy de moo xam lu muy jooy rab boobu moom xawma xam naa daa nen fii rek soo ko mu jooy ah ok mu ngi nee picc la ndeysaan xoolal bii moom moo dàq jur ndeysaan mais doomi day ndaw mais bokk te yi nga xam ne doomi dafa doon ngande bii moom foo ko fekk FDD jur ñu gis na ndeysaan waa Pastef jur ba ci tool yi nii nii ñu bëri gis ngeen tol bi yemul fii de gis ngeen fii yëpp ci tool bi la ci ginnaaw waaw fii yëpp ngeen di gis ci tool bi la <laughs> tool bi dañ ko xaaj ay tool yi tool yi tool yi tool yi tool bokk te tool bu mag bu nekk fee ndax tool bu mag boobu te ñuy inspiré woo pour créer yi tool panneau solaire yooyu ngeen di gis ci tool yi la nekk mooy alimenter tool yi diviser affaire yi donc ngeen gis ne gars yi ci loolu la nekk mais tool bi ngi commencé ci ci délégué mu gëm ko yeneen gars gis ko ku ñëw mën a saay na leen dem ci tool yi ku ñëw ñu won la formé ba nga xam te ni mën naa ne man rek maa ci xaw a ci tool yi man rek maa ci xaw yambar si diggante bi li ko waraloon mooy fi nga xam ne fa nekkoon mooy kaso xaj na moo taxoon ci diggante mais su ma ñëwee tey tool yi nii nga xam ne ni ba affaire dañ ko doon ji mu toll nii ci suuf nii nii tey ma ñëw fekk mu mel nii ça veut dire que gars yi wane nañ pas-pas ci tool yi te bëgg nañ ko gëm nañ ko kon dafa mel ni président Bassirou Diomaye Faye li mu wootee daf ko woote fekk na ci ñun ñu bëgg ko gëm ko fekk ñu tam ñu bëgg gëm ko donc loolu vraiment di bànneex lool ci ñun wax dëgg fa yàlla di bànneex ci ñun te jii waa passé buñ toggee ba ay tooli tool njëkk ci benn tool mu doon ci ñun prototype ñu formé ci ay nit ba ñooñu amoon yeneen tool ba tool yooyu sax gën a gën a nice tool bu mag ba ba ñooñu tamit jëlaat ñooñu ci liggéey ci tool ba ñu ciy def di ci def ay eau filtrée eau yu neex ak yéen a yéen di ci jox ay ni ñu ci liggéey ndeysaan macha allah lii moo tax uh, réew neexu bu neex waaye xale ko yor quoi ak ko gëm ak ko bëgg wër na rasulullaay parce que na ñun bay ñoo noor amul sens bay nawet amul sens boog dañu ngi bay ak nawet gars tamit ñu ngi koy njëkkante waaye diaspora moom xam naa ne gars yi bu nga ñëwee par benn benn laa leen yore seen tool yi yéen tamit <laughs> ndax am ñoo am diaspora ñoo gis tool yi mu neex leen rek année boobu ndeysaan ñëw ñoom ñëpp uti tool di ci bay di ci jar ci investir ñu bari boo waxee ñoom ñoo ñu soxla ci alal na màgg arbre yi fruitier yi bëri ba ci pro loo war a sax ñu bëri euh, ñu am programme pour ci fas yéene ñëw fi nga xam te moo ci département de Diourbel fas yéene promouvoir li nga xamante ni moom mooy arbre fruitier yi fépp ñu koy ñu ko fay ji fas yéene ut nag ay arbre yu baree baree baree bare xam ne heure bi nag du heure reboisement parce que day soog a taw suuf si mandeegul à cent pour cent donc mën ngaa béy comme yenn plantes yi xaw a léger yi lu mel ni ay yooyu waaye am na yi nga xam ne da ngay bàyyi ba suuf si mànn nga soog koy commencé bay parce que fii loolu moom fii laa ko jàngee nga xam te moom bëgg promouvoir ay mango ba nga xam ne jubel ci yoo leen a nekk ci yi nga xam te ni mooy ci at yi ñëw dina bokk ci suñu programme yi nga xam ne ñun gën a ñun gën a fonk la waaw li ngom bii rek lu muy jur lu muy génne ci koom-koom kan xamul nu mu toll mën na ne li ngom bii dama koy gis man ci dañ koy gis ci marché bi man dama koy gis ndax dañ ciy witt ñun di dem di jaay naaj sàcc ay li sama yoon ci garangaañ bi ñëwee masaaj ndax maa ko doon jëmbat ah gars yi koy xalamte ci jaayu de maa doon jëmbat ma sàcc benn xaaral ma ñëwaat ci beneen garab bu ma dem naa ko dagg benn lingom waaw bi moom lingom bi daa sori donc li la waa Pastef góorgóorlu vraiment gars yi ay jàmbaar la lii lépp ko fi xeex ba am ko macha ay jàmbaar lañ de garaa ngañ wallaay dinaa sàcc lingom yi ah man moom damay sàcc lingom yi waaw man de maa ngi ko garab bu ma dem dagg fa benn lingom ziare ko waaw parce que dëgg yi yàgg na maa jam Oh, <laughs> mega beras nga yep. kon gars masya allah dilan leen dilan di leen doon présenté li leen doon wax rek ni benn benn tool moo inspiré yeneen tool yu bari fi ba tax patriote yu bari jubel am ci tool moo tax ba bu bés bu ñëwee fii ba ànd ak patriote di parce que dem sur le terrain dina gis ay tool yu baree baree baree baree baree baree xam ñu jël xaas mbay te mu di jariñ ndax plante yi muy génn ci ay lingoom ak yeneen yeneen man rek maa amut parole <laughs> te man jàpp-jàpp <laughs> donc macha allah daal mention spéciale euh, patriote yu ko gëm yëpp ndaxte fee tey dañ faa dem former waale gars yi expliquer leen war ne ni ñuy béyee leen pour bu ñëwaatee ëllëg ñu defaat ak ñoom di continuer en même temps di bay di leen wonaale di former prototype la ma xam nañ ci former ñeen tey ki xam te ne mooy coordonnateur coordonnatrice bi bi nga xam te ne mooy mouvement des femmes muy urey nee toolam da koo bëgg gars yi nga xëccoo tool yi nag waaw gars yi nag ku bëgg tool waa diaspora gaawal ñëw waaw gaawal ñëw gaawal ñëw waa diaspora yéen ñëpp ci tool yi ñëw leen waaw gars yi ñëw leen gaaw ci tool yi Diourbel moom gars yi dañuy xëccoo tool waaw waaw man moom fii nag kaay leen moom ma ci naqari ci mango yi mango yi dafa yomb am yu affaire yooyu noonu quoi xaale ma ñoo dem man yooyu moom ma ci <laughs> xaale ma ñoo dem ay grenade te yàlla